waaw ñoo ngi sant yàlla bu wér di sant Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima sant Serigne Saliou Mbacke di sant suñu waajur Serigne Cheikh Ndigal bis bi bis la bu rëy ci yoonu Mouride bis la bu rëy ci yoonu Baye Fall ndax dañoo wax ni lii mooy yoo xamante ni sëñ Mourou Moussa Mbacke jëlee na ko tedd ki fii ci Njaareem yóbbu ko Touba ren mooy téeméeraat ci ati gàddaay bi. boo ko nattee ci ati tubaab nag da ngay juum waaye boo ko nattee ci ati gàddaay gi ren mooy téeméerat mu doon cër boo xamante ni sëñ Muntaxa daa delloo mbàtt ca ndaale ndax fii ci njaareem fi la Serigne Touba dajale woon mag ñëpp di leen tërbiya ak di leen defar waaye digaloo leen ñuy tudd yàlla ndax loolu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou moo ma yar ginnaaw sëriñ Saliou te mooñ ko nettali mu ni mag ñi ñëpp la Serigne Touba dajale woon digal leen ñuy yàlla waaye moom moo tax mu féetewoo ko kon sëñ Muntaxa bu jëlaatee lii muy eh, ci saayir sëriñ bi am na téeméeri ci bi mu demee Touba ñu jëlaat ko tey jii di ci fàttaliku sëriñ bi di fi jàng alxuraan di fi jàng xasida waaye di fi yëkkati tur yàlla ñu tuddiwaat bis bis bi Cheikh mel na ni la Cheikh Ibra waxoon ñëw na mooy njëkk gi eh, eh, sëriñ ku tedd ki waaye mujj gi man Ibrahima Fall kon loolu ñu ngi sant yàlla ba tax tey jii fépp foo xamante ni ab Baay Faal nga fa. ñew nga fi tambalé ko ci khalifa bi moy serigne amdou Fall Modou Mbène diko ñaanam mu yag ci lo tuwér ba ci serigne amdou khadi Fall ba ci sunu serigne serigne Cheikh Ndigal Fall mu ngi fi ba ci ñom serigne fall ak sëñ Moussa Mbar ñepp ñu ngi fi and ak talibé yi goor jigen mak ak ndaw ñepp jugee ci dox yi fasantiko ñew fi nga xamanteni mom moy mooy kër gu mak nga xamanteni dañu wax histoire yoonu mourid serigne Touba njaareem lim fi def euh at ak juróom yu taqaloo defuko fenn te booba it Cheikh Ibrahima lii rek la fi daan def mooy liggéeyal Serigne Touba ak tudd tur yàlla lii nag mel na ni li wala fi naan lu yàgg te baax dëgg la waaye lu yàgg te baax mooy dëgg lii nag lu yàgg la te baax moo xamante ni mooy mooy tur yàlla bii nga xamante ni daal cër la boo xamante ni Cheikh Ibrahima moom moo ko moomoon ba mu fi jugee ba tey tamit ay doomam ak i sëtam ak yi di ko sàmm nga xamante ni wax ni ñi jàngalekat yi borom xam dañoo wax ni aw làmmañ génnewut ci làmmañam lu gën a màgg lu gën a sell laa ilaha illallah te tey moom la Sëriñ Muntaxa woote fii ñu koy def di ci njokkeel sa borom di ko ci di ko sant waaye tamit di ci warmaal Sëriñ Tuuba di ko ci njukkeel bu baax ak tamit suñu maam Cheikh Ibrahima Fall Lam Fall Babil Mouridina loolu daal moo na fi taxoon na ñëw ndigal loo xam te ni jox na ko Baay Faal yi ñu ñëw fii ci Njaareem di le 19 ñu fi fàttaliku waat bisub sëriñ bi muy téeméeri at waaw mbiri sëriñ Tuubaa moo demee nenu kenn ñëw na rek am mission bu mu lay def loo sëriñ Mountakha nag mission dafa bokk ci lii nii ndax tey bi ma toogee rek maa ngi wax ne lii day dundalaat barab bi ci saayir ndax ñun ñii soxla nañ ko njaareem soxla na ndax histoire yoonu bu doon fukk la ñaar la kon ñun lii sant nañ ci bu baax baax baax ndax sëriñ Touba fii la jugee dem Touba Cheikh këram gi ci màkk looy looy te suñu seex ndigal fa nekk fa fa la jógee dem Touba kon bu buñ fi ñëwaatee rawate ndam ñi ndaw ñi ñu bëri danañ xam ni li Serigne Touba doon def ak li Cheikh Ibra doon def lu bari fii lañ ko sottalee histoire yoonu murid daal dafa yaatu fii kon ñoo ngi ñaan Serigne Mountakha at mu jot yàlla nañuy am taw feexi mu ñuy def loo ndigal lii ñu koy jëf te day cee ngërëmul bi rek ci barke Serigne Touba